waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internet sans limite yi nee naa leen seen mbégte ci laay dox li nga xamante da leen di rek su ma ko defee ci laay dox macha allah tubar fakàl la tey nag ma ñëw seet si ndaanaan ma ñëw fekk ko nag fi nga xamante ni ku fi ñëw rek da ngay meer muy fan espace beauté espace beauté xale yu bëgg a jongo ma yëpp fii laa leen fekk tubar fakàl la macha allah chez Mbaye mi ngi nekk Pikine ci syndicat bi rek boo fi ñëwee di nga jongoma tabaski gi di nga jël pee fii laa ñëw ak si nag bi nga xamante ni tubaar fakal la lu mu wax nit ñi déglu ko lu mu wax ñi ñi bàyyi ko xel mu def jongoma def belli rëtatoo su ma nee rëtatoo xel yi day dem ci ki nga xamante ne mooy Adji Mass macha allah sama xarit sama doomu ndey ji jongoma daal dëgg neexul nuyu naa la. lu yàgg dëgg la fan Mbaye fay naa la eh, di la ziar di la tatagal di la jox sa wàccuwaay di jaajëfal ñëpp di wax ange billahi mina shaytaan rajim bisimilah rahmaani sant yàlla julli ci sang-sang yi alayhi salaatu samay ñaari waajur ya santati sama sëriñ ba sama xarit ba sama wasila ba Cheikh Abdou Karim Mbacke borom dindi borom kaari max laa fan ba yow nee naa la toujours immense lay daal doon ba ñu toogee ci émission ndax nee naa ko lijjanti nga boo def sa bopp marque tampon caché tubarikàlla fa xas dootu la gaaw gindi waaye ci noonu ko am di jàmm yi ak mbokk internet yi du ma leen fàtte fans yi du ma mooy borom pikin waalee ko koo xaloon tubaarikaala moo sajj nag ci digg ji mboxu bees dootul jafe nee naa ko ku bëgg sajjul rafet fii dong nga ñëw fii nga ma fekk tey moo ko laay bal moo may bellil man di ma jongomal su émission ci man moo gën ci man moo gaaw ci man dina ma simpotal ma jongoma dina ma dégagel ma jongoma tubar fakala allah belli rek jongoma espace beauté aji maas sama mag sama xarit aji maas tey ñu fekkoon la fi nga xamante ne mooy salon Mbeya ñu nekk ci wàccaay bi nga xamante ni mooy wàccaay tabaski mu nekk nag lu metti ndax nit ñi ñi naan xaalis am na ñi naan xaalis amul wàccaay gi bari ñii di daw ñii di làqatu da ngay woo nit sax du la jël kaa gi bari détails yi bari wax ci bari mu bëggoon nga faram fàcceel ñu ko rek ndax yow loo wax ñi ñu déglu la macha allah. ah comme ni ko waxee rek jamono moom moom nee naa ko sikki ma lakkandoo te ñax mi defe naa ni fépp lay daal di baxee ndax boo xoolee eh, na woon ay 2012 jàpp 2010 bokkul ak 2022 bi ñu nekk ndax nag xar yoo xamante ni danoo xar yoo xam ne amu amuñu amuñu wen fi mu ne ni koy jaayee 150 mille boo bëggee jënd xar moom bañ xar moom wen 200 mille day métti dëgg neexul te xar nee naa ko war naa mat sëkk na defe naa ni yiñ ci wax yi ci charia wax ba tax na nga war a mën a tabaski xar mi war na mat sëkk kon nag buñ la jaayee xar moomu bañ amul ween defe naa ni masala la wax metti na te jamono foofu la toll kenn mënalul nit ñi dara frontière bi ñu tëj tamit da ciy joué lu bari waaye rawatina nag euh, euh, defe naa ni xale góor yi mel ni ay jakarta fi mu ne nii ñoom ñëpp koo ci woo doy ondi lewu munoo fexe mu redd dëgg neexul ñoom ñëpp danoo def seen frisé toog jàpp seen ñàmbur kenn du leen kenn du leen àq ci Adimance mu metti pay da ndax day da nekk ak jigéen mu jël sa yaakaar bi yëpp dénk la ko moo xam da ngay liggéey ak liggéeyoo mu jël sa yaakaar dénk la ko nga koy woo du la jël wala nga filtré ko est-ce que loolu rafet na du loolu neexul sax dañuy bàyyi ba bis <laughs> dañuy bàyyi ba programme yi nag am rek incha allah ñu tappaas sax boo leen leen waxee waaye yow nuyu naa la sax bu ko defee ñu naan waaye yow ma nuyoo nag ngir bëgg la tappaas gis na ni mu demee dañuy bàyyi ba événement yi di waaja ñoo ñu tappaas la boo leen nuyoo nuyu bu leen neexul sax ñu commencé naa la yow gi temps yi ni nga may nuyoo est gis nga ko yow sa yii ngay def mooy lan man nag ci yu mel noonu man bañkat laa man vainqueur laa man gaynde laa damay bañ ba dee dama lay tappaas man tamit dëgg neexul nga ondilewu ma ondilewu nga redd ma redd bu programme bi jàllee nga bëgg nag taxaw nag jëndar glace man la mun ta nekk jigéen ñi mat leen ngeen takk seen ndigg yi ba mu dëgër te ngeen xamante ni événement bi benn fan la birki démb dama koo déglu ci wayu laa diva à la grande voix d'or mu di Kumba Gawlo daal di way duma femme objet ñaar loxoy takk tuba ñaar loxoy takk sër ma ne wa ma ne wii je valide xam ne tama ne wii je valide Fatmay parce que dama ni moom vainque moom moom lijjanti na ba def boppam marque tubarikàlla ndax nee naa ko koo xamante ni réew moo wàcc membre gouvernement ba la gis wala it tamit nee naa ko euh, première dame kooku réew defe naa ni def nga lu ba extraordinaire ci réew mi ba tax na saayu way lu ci nekk rek day nekk day nekk day nekk loo xam te ni tubaarikàlla day nekk euh, conseil day nekk njëriñ ndax way bu diglewul yette way way naxaate la moo ci lu am importance fa laa inspiré woo daani dégg ngeen li mu wax nee na ñaan la koy takk tubay ñaan la koy takk sër bien sûr dëgg neexul gëm leen seen bopp te ngeen xamante ni boo leen ci defee lu doye di maa ngi def ci lu ma tati nee naa ko julli gi deux heures tubaarikàlla nga découragé bu guddi jotee say nelaw dina la réer waaye tamit di nga ñàkk sa dignité ñàkk sa valeur ñàkk sa personnalité te benn bis jaru ko cheveux jaru ko dàll jaru ko dara jaru ko parce que nee naa ko nee naa ko kii dong la lu nga xamante ne sunu borom moo ko fi wàcc ñëpp bëgg ko événement boo mënee defal boo mënul toogal te bul xolu nit am li nga am na nga fier ci loolu dëgg na xool gisoo ni tey xale yi jigéen ñi li tax góor ñi yëpp leen ci ñoom la parce que mënoo nekk jigéen nga basé wu ci góor jël sa lépp rek wekk ko góor ni góor bu ma defalul du am. Fane Mbaye loolu laa lay wax dama ne góor bu amul lum la rusee du la respecté. barki chef du Karim góor na na na xool ni yow doo doo jigéenu dépendante day am fi la teg danga koy wan ni yow man duma ma oto bu nuy puus muy takk man. dem soo ma joxul ma dem boo ma joxul ma dem. waaye pour lan dépendre ci góor ba pare góor gi na tëti dafa wax lu am importance dafa ni nit xam na lu ko war ba tay te def ko. yaa ngi dégg parce que nit ki munoo di ànd ak moom ay tabaski yii tax ngay ondile wu wala événement yi tax ngay ondile wu na nga meloon ak moom redd. ba bis yi jot continuer ko mais munoo sëgg ni wii léegi ba mu neex la sëgg ni non. chaque jour même problème la. chaque jour même problème événement bu jotee dañuy changer dañuy yor beneen couleur. beneen couleur mënoo kenn mun kenn mun leen kenn mun leen identifier mënuñ ci dara dëgg neexut wax dëgg yàlla. donc mi ngi noonu doo xam sax lu ñuy doo xam daal doy na waar mais en tout cas ñaaw na trop waaye jigéen ñi ngeen man rek mel ni man mel ni Fatou bay mi mel ni keneen ak keneen ku mel ni ñun <laughs> fier de ñu je suis fier même dëgg neexul na boo takkee sa ndigg liggéey la nga war a liggéey wax fa nga war a wax dem fa nga war a dem ànd ka nga war andal àndal xam nga dafa am ay góor ñoo xam ne góorumaa tay lañ noo waxee da naan la et puis après et ama et alors di la tendance man góor yooyu duma leen may zéro duma leen may dara wax dëgg yàlla dama leen pertal ba perte nag wax dëgg yàlla liggéey rek moo koy faj fi mu nekk nii seul le travail ki fay amul secret da ngay réussir pour réussir da ngay réussir pour échec da ngay dem ci góor ñi ñu ri la ba sa karawu ndong dañ si ñoo dootoo ko defati te ba tey rek ci li nga xamante ne mooy préparation tabaski bi tey nit dina am lii moromam du ko am. nga teg sa bët sa morom nga tek ko bët. nga ni Fatou Mbaye am na lii wala Adji Mass am na lii. man damay lii loolu pour lan moo fi bëri moo fi bëri di ndax da ngay gis bu jigéen boo xam te ni yow liggéeyoo xëyuloo gontuloo. yow yow boo yeewoo yow nee nga une heure nga yeew yow. te wërsëg du moromu jàmbaar te waxoon naa du ñëw deux bu doon ñëw deux doo yeew quatre heures du matin dang nit toog biir këram yàlla di ko teral ci yërmandeema njàmbaar ak jëfam ak jomam yow nga ne yow da nga koo teg bët wërsëgu une heure du ñëw deux heures foofu laa ko teg nit li nga am na la doy nee naa ko bu avec Mbaye tout est possible loo am tubaarikàlla da nga ñëw mu defar la ba nga baax boo amul sax tubaarikàlla mu teg la ci as ba kenn du la reetaan nee naa ko cheveux yomb na lépp yomb na na ngeen jar na sax ñu koy condamné on se dise la vérité. iñaa iñaanante bi du den ci xale jigéen ñi kenn mënu ci dara dañ lay xool rek yow xolal xolal bañ la gratuit te doo leen def dara. wala fental la ay sëñ ay duuli mbay yoo xam ne moom danga naan ñii kañ ñii lan laa leen def mbaa ñu sosal la ay sosu duuli pren ku deyin yoo xamante ne danga naan ñii lan laa leen def te xale jigéen ñi teguñu ko fenn lu dul jalousie gis nga ki da ngay fier ci sa bopp man Fatou Mbaye maa xam nga leen pour man dama na may taxaw ba mu yàgg ma ne Sénégal maa fi dàq loolu ci lan la bokk ci gëm sama bopp xam nan dàq ma fi kenn na sama yel mel ne cuuraay bant yaa ngi dégg samay loxo mel ay batone dàq ma fi kenn waaye da ngay ni man maa dàq ñëpp gëm sa bopp ci la bokk waaye nag boo gëmul sa bopp technique lu ma am <laughs> di xool rafetaayam ak taaram ak takkaay ba takk ak <laughs> ay sabaam da ngay jommi diñ leen loolu mooy dëgg. Adji Mass euh, mën nga gëm nga ni Sénégal instant bi dafa metti. dafa euh, instant yi Sénégal. parce que ñi am rek ñooy dimbalante seen biir. ñi ñàkk dañoo gën a sonn. ñi ñàkk dinañ gën a sonn barke Serigne Touba. ndax loolu dama ne la gor bu amee euh, gor. bu amee ci baadoola bu amee ci karamu gor gor gi day sonn ndax gor bu munta ñaan munta ab mun la di soxlaam bugul ku ko gànt day sonn ci kanamu baadoola ba baadoola tëbantu de def yëf nee naa ko ñi ngeen na ngeen am na ñi nga xamante ne yelloo nañ ko nan wax data yàlla tax am na jigéen ñu diiñ ñoo xamante ne teel a xëy guddee wàcc mu yëmma mbaay ci seen côté waaye nee naa ko li ñu am doy leen yaa ngi dégg ñooñu defe naa ni seen loxo même bu jotul seen am nañ seen ngor ba li nga xamante ne li ñu am li leen li ñu am ñoom doy na leen ñooñu nee naa ko ñoo mérito dimbal ñoo mérito ndimbal dëgg neexul waaye tey da ngay gis benn baadoola boo xamante ne nii nekk gor gi rek gor gi day sonn automatiquement parce que dalay leer ni tey jii rek baadoola bi gënu la ci judd gënu la ci jiwu gënu la ci waaso gënu la ci dara waaye mi ngi tëbatu sa kanam mi ngi def yëpp waaye yow nga diñ moo koy faj parce que def te yàlla tax mi ngi am léegi ba tey am na nag ba tey tubaarikàlla sama waaja bëggul ko tudd turam bërki de boo njaay maak Adja Fandoy ban ko fekkee tubaarikàlla euh, këram foofu meloon na tulluku na bu def tega tega sabara mi ngi teral nit ñi ba tey kooku bëggul ko tudd tur waaye nee naa ko musicien bu nekk ci réew mi di fi tedd loxoom jugu ci ñi fi dàqaway Sénégal loxoom jugu ci nee naa ko nag yow na cënjal ndax bëggul ko tudd turam keroog ba mu ñuy wax ñuy la ñuy taal dafa ne déedéet du ma bàyyi ba lamp yi tàkk ñu doog a maye yëkkati li muy joxe joxe ñu ko suñu enveloppe ba tey tubaarikàlla lu waay jënd ñu jënd ko sëtu la jot job bi joba juba ànd rek koy njaay téngiru job laati saar kooku lu waay di wax na wax na ko waxal lu baax waaye tamit kenn du nag jàmbaaru sumbulu bi moom Ablaye Diop Xaas moom dafa yeewu ca njël moom it kooku moom ci teraanga la dëkk ak man biir ki demoo ñaar yi dama def sama anniversaire moo xam ne ay caaxaan du ko jël da fay paketu xaalis ni ma rëkkal ba mu neex ni nga def sumbulu moo tax ma def la nii wax dëgg yàlla ñuy dimbali ñi ngi dimbali ba tey loolu moom mën naa ko wax preuve ci tabaski am na koo xam ne it may na ma xar bëggul ma tudd turam ba tey ci tabaski ba tey ci tabaski gi wax dëgg yàlla xale góor yi gëstu leen nga xam ne nag bëggul sama dara lank xaaru sax nag ay tabaski nee naa kon muy doog a teralaat wax dëgg yàlla kooku ba ma ënd barangu ne ba tey laalu ma benn yoon suuf barke yonent bi kon lan ngay wax xale góor yi xale góor daal li ma leen wax ngeen dawal yërmande wax dëgg yàlla moo gën programme ngeen mel ni ay jakarta di daw bu leen ko def jigéen mooy yaay jigéen mooy magasin wu sunu borom jigéen yàlla da koo bëgg da koo da koo bëgg ko ormal ko ba wàccel ko saar kon ki nga xamante ni moom moo lay bégal moo lay indi ci àdduna kooku respecté ko le minimum mais bu événement yi tax nga tax na nga koy chantage wala mu jar la ngay soppi sa jikko xam nga di mel noo xamante ne nii après da koy déstabiliser te benn bis bi jar ko góor ñi ngeen dawal yërmande jigéen ñi ngeen bàyyi mbaraan bi jigéen dañuy mbaraan ah yaax lool jigéen dañuy mbaraan parce que boo yemee ci benn góor mu leer na ni yow danga nga sincère ci moom da nga yem ci moom da nga sérieux ci moom da nga ci moom kooku du la yemaleeg lu yàlla bind di wax encore une fois yàlla nañ ko yàgga teewe at yu bari nga ni mbaraan bi de moom mooy indi problème yooyu mbaraan mooy indi problème mbaraan kese problème parce que da góor moo bëgg découvrir gis na góor ñi ñi ni góor ñi ci boppam ñañ ñi takk ca faratay la sunas mu xamee teg lañ ci seen biir kër yi mbaa yëg nga ni respecté nañ leen xale yi jigéen yi ngeen xamante ne nii xaman ñu ma leen ko tuddee ñambaan daxaar bu ñuul bi laa tuddee xale yi mbesa rese doog a juddu gi maa jaay solution bi ci dëkk bi di xale yi koo ci bi ployé ngay foog da nga élevé ay ginaar xale yi civilisé tuñu xam nga kon kooku bis bu takkee jabaram teg ko ci place bu demee ci xale ba di ko doxaani na la leer découvrir la lay doyee waaye du la takk de ndax jabaram la nopp teg ko ci biir kër gi muy géré mooy jeg bi billaay yow jaget nga te bala ngaa xam ne jagat nga sedd jot ba nga dem marché dimanche ni nga fa fekk sa bopp la wax li yow gisoo ne tey xale yi jigéen gisoo ne tey infidélité bi eh, ci jigi góor ñi ñoo tax xale yi jigéen infidélatuñu waaw góor ñi góor ñi ñoo tax mais xale jigéen am na ñoo xam ne seen nature lay doon kenn mënu ci dara am na góor ñoo xam ne dana doxaan doxaan ba doxaan seen takkandeer yi bu nu gisul jigéen sa dem si naaj bi taxaw seen takkandeer bi naan ko mais faa est-ce que xam nga dafay yëf danoo bëgg jigéen da nature kenn mënu ci dara fi infidélité bi moo boo bëggee dégg-dëgg parti góor ñi parti jigéen ñi mooy loolu kenn mënu ci dara. góor ñi di daw ci événement bi loolu nga gis. góor ñi di daw te góor ñi tamit kenn mënatu leen nax léegi mooy loolu danoo yeewu eve ca njël dëgg neexul boo leen naree mbaraan dañ koy teel a xam teel la teel la nag préparé nag daan la jël boo xamante ni non loolu mënuma la ko nettali dootoo si ñëwati moom sa karaw fii moom day mujj tasaaroo. mbokku internetu Sans Limites nee naa leen seen mbégte mooy sama joie ci li nga xamante ne moo ngeen bëgg rek ci li leen neex laay dox nee naa leen Adji Mass macha allah tubar fakal la jongo na bell na te li muy wax dina ko teg ci temps muy sama xarit nekk nit ku baax jongo ma ba yàqu nag te lépp da koo jël rek teg ko fee nekk taaliba sëriñ Abdou Karim Mbacke Falilou ñun sëriñ Abdou Karim lañ doyloo. moom lañ doyloo de moo tax moo ñu moo ñu def moo ñu defal lu ñu jomb tubaarikàlla moo ñu defal ku ñu gis bëgguñu moo ñu defal fu ñu dem daan moo ñu defal tubaarikàlla ku baax bëgg ñu te boo ñu naree tubaarikala indil ji fii jaafaay wasi wasi jay tal sa bopp kooku kenn du moom de kenn du moom sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilou sama wasila bi nga xamante ne moom laa doyloo mooy sama yaakaar tey ak aji maas laa seet woon fii tey mu nekk sœur nekk nit ku baax ma ñëw tak fekk si ko fi nga xamante ne war naa ko fee fekk muy fan espace beauté nee naa la samay tournage moo ci gaaw su ma amee imprévu mbéya moo ci gaaw dina ma defar dina ma simpot dina ma jàppale dina ma woo sax ni ma Fatou Mbaye xanaa ga nga gëj mu nekk nit ku baax nit ku disponible borom espace beauté nee naa la espace beauté ci yow macha allah ku gis salon bi xam ni defaroo fuusaa xale yi ñëw la da def lu baax lu meilleur moo tax xale ñëw wuy si la aji looy tëjee te muy di kontaan rek wax dëgg yàlla di jaajëfal bu baax a baax élève Mbaye yi di jaajëfal clientèle am yi tey ñëw fii ñëpp macha allah di di salon bi des na jar na autre chose te nee naa ko Mbaye nit ñi mën nga lu mën nga defar say salon taal say lamp indi say sint pot créer say mannequin ak say kii tet waaye bilay walaay boo mënul di nga leen namm waaye mbayee li ngay def nga teg ko ci heure ak temps ça fait des années tubaarikàlla ngay ñëwen ci ak accueillir bi ngay accueillir nit mettre ko à l'aise ak jar na kilo libre tubaarikàlla kenn du yoo sama waa ji géy ñamber maara ma sëy na ba fara tëgg cawar maan jigéen ju mën góor ji baaxkat bi liggéey te dara nga voté waaye tamit di sax di nekk ci ginnaawam yàqu ci dara waaw xadi xale yi ñu fi nekk parce que nee naa la feccum li su neexee nda yaa tecc mbëgg xale yi fi nekk dañuy jàppale mbéyal di ko dooleel xale yi tamit da ngay ñëw ñu accueillir la dooleel la tubaar fa kàlla macha allah di la may courage ci li nga xamante ne ci nga yëngu tàggatoo te muy dëgg kontaan naa Fane Mbaye di ñaan yàlla nañ ko fekkee at yu bëri bëri nee naa ko ba tabaski eh, déwén nare ñaaw yàlla na mel ne ren ñi nga xamante ni nee naa ko seen loxo féetewu seen ginnaaw yàlla yombalan leen ko nee naa ko yàlla it tamit eh, defal ñëpp jàmm ñu fekk ko at yu bëri bëri bàkke Cheikh Abdou Karim jaajëfal naa ñëpp bu jubee nag ci sunu borom la bu dëngee ci man poobar doom yi la jaajëfal naa ñëpp